Gora Ndoye confirmé na ko waaye Mor bu parcelle wane na ko Fadam wane na ko ba ci ki nga xamante ne tey moo waral bis bi tey wane na ko Jamaïcain gis ngeen ko moom it wane na ko ñoom ñi ñëpp ku ci nekk amateuru làmb nga bëgg làmb am ay taxawaay yu rafet yoo xamante ni yéen a ngi ci làmb bu buñ gisee ñaari mbër yoo xamante ne dañoo nekk ci jeexi jaax ñu sol seen dàll dem waxtaan ak mbëri vraiment ñii dañ leen di baax di leen félicité leen ba lépp lu ñu bëgg ci làmb yàlla suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot damay njëkk nuyu président bàyyi ko mu nuyu mbokk amateurs yi wax bis bi tey nan nga ko gisee làmb amaat nag promoteur bu bees amaat nag gan boo xamante ne ñëw na ci làmb lan nga koy wax ak nan ngay nuyu mbokk président Gora Ndong waaw champion maa lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu vraiment Mourou Baye Fall bi ñu fi dajale tey di nuyu tamit vraiment ki nga xamante ni tey jii nii mooy Jamaïcain di nuyu Faram Tou ak Mor Diouf di nuyu mbër yi nga xamante ne aussi ñoo wara a bés bi tey ji nii parce que fii nii daaw ci heure bi daje nañ fi Mourou Baye Fall invité ñu fi defal ñu fi ay teranga muy ndog yi nga xamante def na ko ñuy ñaan yàlla at bu ne rek yàlla di ko gën a mënloo ba muy gën di yokk parce que tamit yombul mu nekk amateur sentir ne ku war a ñëw jàpp ci làmb la mu jëlaat alalam dugalaat ko ci làmb fii tey xel comme automobile ñu ngi koy ñaanal mu am yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu jëm kanam parce que jàmbaar la et puis liggéeykat boo xamante ni lépp lu mu am rek mu ngi koy doomu aadama yi tey bu ñu fi woowee ñun ñëpp dañuy sawar a ñëw fii di ko ñaanal nag li nga xamante ni tey jii nii mooy xam nga ouverture am ci làmb muy première journée bi yàlla defal ko ci réussite totale parce que xam nañ yéeneem ci làmb xam nañ ne yéeneem dépassé na sax ñii nii am na yéene tëgg sax roi des arènes kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom lafal ko car rek moo tëli ko yoonam di sant ñi fi daje ñëpp nag parce que tey axlu làmb ñoo fi daje comme ni ko ku ci mel ni Mor aussi gis nañ liggéeyam ci làmb yéen aussi ñu leen di félicité waa presse bi parce que gis nañ saabu waa làmb xewle rek ngeen ñëw accompagner leen jàppale leen te moom jeune la boo xam ne ku war a ku ñu war a jàppale la parce que am na ay ambition am na yéene ci làmb vraiment daal di kontaan ci ñi fi teew ñëpp di nuyu aussi tamit suñu soxna yi nga xam ne ñoo ñu defaral ndogu yi vraiment di nuyu tamit ñi fi nekk di liggéey ak moom parce que ay gars yu ko jàppale ci liggéey bi ñu leen ñëpp di sant leen gërëm di ñaan yàlla journée bi daal yàlla defal ko ci réussite ak beneen journée bu jërëjëf am na solo Mor yegg si nii taxawal ne président jaajëfal naa ko bu baax président Gora dooy président des amateurs waaw gis nga tey du Baye Fall dugg si na ci làmb vraiment yor licence tëgg làmb ngeen ñëw tey gis affiche yi mu tëgg yan ñaax ñu koy gën a jox ak lan koy wax waa lu maa ngi lay nuyu waa di nuyu waa Xelcom automobile bi fi nekk bi waaw di nuyu tamit euh, presse bi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam waa di jaajëfal ñi fi teew yëpp mbër yeeg ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal en fait Modou Baye Fall dañ koy ñaanal rek parce que tamit xam na ambition am si làmb xam yéenem en door muy nekk promoteur nitu làmb la di jàppal ay mbër kon tey si sooboo si làmb pour organiser ça ne moom mu ngi mu ngi si lu mu miin te tamit dañ koy gën a encourager parce que tamit lim dugg jàppal ne ñun ñu ngi si biir góoraa ngi si biir Fadam Jamaïque ñëpp ñu ngi si biir pour dooleel ko pour mu am réussite si le 28 bi incha allah te jàpp nañ ne suñ borom su ko fayee xolam rek day am réussit parce que nit ku baax la nit ku social la nit koo xam day partagé ñëpp amaana mënoon na dugg si dara bañ ko yëgal mais lépp lu muy def day laaj jaamu jaamu yàlla yi gars yi dolli ko xalaat ça veut dire le 28 incha allah jàpp naa ne Youssou Ndour bu lébu gi ak euh, Thiatou Daouda Fall. événement bu mag bëgg nañ ko def parce que mooy rentrée am te rentrée bi nag il est euh, temps ñun ñëpp ñu indi suñu doole indi suñu xel suñu xalaat pour mu am réussite parce que réussite bu Modou Baye Fall mooy suñu réussite mooy réussite président Gora mooy réussite Fadam bi ça veut dire na ko axlu làmb ñaanal mu mën a yeggale mission bi daal waaw loolu lañ amoon lu ñu siy wax di ko jaajëfal di ko ñaanal jàmm ndax daaw heure bii ñu ngi fi woon di ndogu boobu nekkul woon promoteur tey su duggee si axlu làmb pour nekk rek daal. kon nañ leen ko jàppale jàppalee làmb gépp lañ jàppale. Fadam la làmb la Fadam macha allah gars yëpp naw nañ la ci sa xalaat bu rafet ci làmb tey nga gis ku mel ni Modou Baye Fall nekkoon amateuru làmb dem ba dagg licence am dugg ci làmb am loo xamante ne fas yéene ko defal ay rakkam. fas yéene ko defal ay njëgëñaan lan nga koy wax. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm. ni Fadam di duggee rek mooy comme nañ daan duggee ci wàllu làmb. Baye Fall nag tey dafa war bi mu wane ci wàllu làmb mooy mooy mbëri nañ dem bu ñu bàyyi seen métier nag làmb Modou Baye ni la sol di présenter journée kon kooku tey jii la def pour mu a tëgg làmb moom la jiital kon mbëri tey jii lañ nga tey jii avant ñoo nekk mbër moo lañ daan dund ci wàllu làmb nañ ko dem defi ji bu kenn bàyyi sa métier ngir làmb ndax Modou Baye Fall ak métier moo tax te lamb dafa toll foo xam ne nii benn mbër dootuñ la waxati ne la yaay def nii yaay def nii mbër yaay jaay sa bopp. journée yi ci kanam mbër bu ci bëgg a bëree journée yi yaa ciy wane sa bopp. yaay wane sa bopp ci signature yaay wane sa bopp ci yar yaay wane sa bopp ci wàllu mobilisation mooy tax journée yi ci kanam gars yi mën laa xëccoo ndax lamb yàggul. loo fi bëri bëri doole di nga gis ku la ëpp doole. loo fi mën a bëri di nga gis ku la bëri. loo fi mën bës di nga gën a mën bës. ndax dans cinq ans ci ginnaaw amoon na yeneen mbër yu amoon coow yoo xam tey jii déggatoo leen te ji mbër yi nga fi dégg beneen yoon dootoo leen fi dégg te yeneen xale yu judduwaat mm-hmm. ñu ngi ñaanal xale yooyu di judduwaat yàlla nañ ci ñiy bokk mm-hmm. waaye lamb yàggul ndaw boo nekkee ci axlu lamb mm-hmm. ki leen tëgg promoteur la xale la waaye ñi muy loo tamit ay xale lañ maa boole caatu Daouda Fall ak Youssou Ndour Youssou Ndour mu ki ci daanaka vingt et un victoire waaye ka muy déggeel caatu Daouda Fall la xale bi gën a osé ci biir bëre waaye Youssou Ndour bokk na ci xale yi gën a assuré ci wàllu lamb muy bés boo xam ne nii amateur li dañ koy xaar di arène nationale nekk bés bu mag boo xam ci wàllu lamb la lamb kenn moomu ko nit ku yaru te xam fan nga jëm rek moo ko moom. boo xoolee tey jii ak làmb lamb tey jii boo xoolee amateurs yi ñoo nekk ay promoteur amateurs yi ñooy wax ci làmb amateurs yi ñoo bokk ci CNG bi. te bis dina ñëw lépp loo xam ne ci ak lu la bokk rek ci amateuru lamb la juddoo. moo tax lamb boo ci nekkee da ngaa war di rafetal. boo ci nekkee da ngaa war di jubal xoola moor mii moo jiite jàmbaar production ah moo tëgg daanaka mën nañu wax ne Siteu ak Papa Sow moo tëgg diggante Sokh ak Franc jamay kee ngi nii combat bi de bi nga xam ne nii ci làmb jëpp moom la ñu xaar moo ko tëgg diggante Fass Fils de Balla a Goro Sock ah te dégg naa ne rax na ci beneen combat boo xam ne tey jii mooy njar ndimba tey jii làmb fi mu toll mooy ki nekk war nga ci mën a gis sa bopp waaye ni ñu ciy gisee sa bopp mooy da ngay yaatal Modou Baye Fall gan la ci làmb te avant moo dugg ci lamb da ko tarbiyu bi mu ko tarbiyoo ni mu ko tarbiyoo mooy nekk na mbër bàyyi làmb jugee ci làmb nekk amateur bi mu jugee ci làmb bokk ci association boobu mag boobu di jeune amateur bi mu demee ba bàyyi bi ci la jaaree tëgg làmb ko kooku noonu tarbiyoo noonu làmb làmb ñii la soxla mooy ki nga xam ne ni tey jii dafa njëkkee ci làmb ay coono doog a mujjee ci lii kon tey jii ahlu làmb ñu ngi koy ñaanal lii mu dugg nii yàlla na ci tëgg combat royal ci barke Seydina Muhammad loolu lañ koy ñaanal gaa yëpp jamayke yegg si jërëjëf daa gàtt nañu ni sawet <laughs> dafa gàtt waaw si ci làmb nga lay maa ngi lay jaar di la nuyu di nuyu caméraman bi teew di assistance bi képp ku fi teew rek ñu ngi lay jaar bu baax a baax a baax mbër amateur fan sa club ñu fi ñëw yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu yaay booy nekkoon tamit ci ndogu yi hmm. ñu ngi leen di jaar bu baax hmm. moo du Baye Fall nekkul ne mu ngi door a ñëw ci làmb hmm. yàgg na ci làmb Fadam wax na ne léegi mu jaar waaye nag li mu dugg nii mu ngi ciy door a dugg. Mm-hmm. waaw man nag li ma koy ñaax rek mooy da ngeen jàpp ne dafa joxe avance kese. Mm-hmm. waaye dafa joxe avance ba pare jox boppam avance. Mm. waaw ni mu bëri amee combat noonu la amee combat. lu tax nga wax loolu. <laughs> waaw non <laughs> li may wax yow yaa ma gën a xam. Mm. la leer yàgg na ci lamb waaye mosul jox boppam avance taxawaayam bi mu taxa nekkoon ci làmb. ak taxawaayu tayam day am changement li ma koy ñaanal nag yal na ko yàlla musal si caxabal yeeg mbot yeeg galgal yeeg coup perdu yi yal na ko si yàlla musal suturaal ko ci ku ko lancé balaa ko bi di yegg si yàlla na ko gis ku ko bal yal na caxabal bi génn mbot yeeg teq yeeg yëpp yal na ko si yàlla musal yàlla jàppante waaye bu mu daal non non jàppante sax yàlla jàppante mënul ñàkk non bi mu joxee boppam avance a commencé jàppante ndax mbër yi xaj na benn adversaire lañ am waaye moom mu ngi am lu mat cent adversaire yoo xam ne léeg-léeg sax ñu ñëw di la fekk nga si pire adversaire nañ ko ñaanal daal yàlla musal ko ci loolu lépp ndax mu si ñàkk li mu sumb ni yàlla moo tëri ko mu dem ba tëgg combat royal ndax fii moom chaque jour ñun ñu oto moom moo koy dépanner mm, promoteur la waaye dafa am métier mm-hmm. du lii rek moo ñu fi indi ñun nag suñu teewaay fii benn suñu digganteeg moom ci làmb mm-hmm. ñu nekk nekkin bu rafet suñu digganteeg moom ci liggéey bi muy def mm-hmm. tey mu ñëw nekk promoteur comme ñun day jaadu lu mu xewle ñu ñëw teewal ko bis bi daal yàlla na ko ci yàlla defal jàmm mu am ci lu kawe njortam Mor tamit ñu koy félicité yi ñu ngi koy ziar bu baax Fadam la làmbaloog di nuyu ñu nekk ci diaspora bi yëpp di ñu suivre moo yàlla na la yàlla defal jàmm sutural bu baax a baax a musal la si nag ci dama la ñaanal yëpp waaw yàlla na la ci yàlla musal ñii ñëpp taxaw ndeysaan Jamaïcain mooy seen mag Fadam président Goro Ndoye ak Mor Parcelles ñoom ñëpp mooy seen mag waaw moo leen bokk yi maa lay nuyu bu baax Mor bu Parcelles euh, jàpp maa ngi koy jaajëfal bu baax mais maa lay nuyu bu baax Modou Baye Fall vraiment tey ñu ñëw si sa bërëb bërëb bi nga xamante ni tey teraanga boo am ba mën a tëgg làmb fii nga ko amee nga sol sa sa tenue mu am lu muy wane mm-hmm. bëggoon nañoo xam lan moo la dugal ci làmb ba nga auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari di sant waa xel Xelcom automobile yëpp di sant équipe bi yëpp jël nuyoo bi di ko teg si loxo Sonko mi grand boy yi di ko nuyu di nuyu boy yi fi nekk ñëpp ma ñaaw Abdou ñoom Assane Fallou suma rakk yi ñoom ñëpp di nuyu suñu tëlee bi grand Jeylaani électricien bi Alaaji di nuyu waa Xelcom automobile yëpp di wax ne Modou Baye Fall bu demee boo mën a taxawal làmb ginnaaw yàlla ci si ginnaawam la te Khelcom automobile am na équipe bi nga xamante ni daanaka li mu Baye Fall war a def lépp ñoom ñoo koy def ñu wàllum liggéey bi et puis ñu assuré nekk ay nit ñoo xamante ni dañ leen respecté respecté liggéeyu jàmbur ñoom ñoo ma gën a bëgg oto yi ñuy déparé sax buñ gisee oto mu am problème ñoom dañ ciy taxaw ñu ci war def yëpp dañ ko ciy def ba mu mat ma nekk ak ma ñàkk fay nekk des fois ma gën dem voyage mais dafay mel ni maa ngi téléphone laay jokkoo ñoom ñu war dañ koy def te fii mu su fee ñëw dépanné ba ba am suñ ko yee ñoo ngi waat ñëpp ñu jàpp si te xam te Khelcom automobile ay ndaw ñoo ko yore ay ndaw ñoo ko jiite di leen sant bu baax di nuyu nag suma yaay bopp muy madame Ndiaye di Mbène Ndiaye station Total bu assemblée nationale gérante bi moom lu ma nekk lu nekk rek moo ngi si muy ngénte xew muy lépp tey gisoo ni mu ñëwee ñëwee dafa andi te fekkoon na ñu jënd ay bagages mais lépp lu fi nit lekk rek moom suma yaay jee toog moom moo ko fi def moo ko jënd àndaale dugal ko si otoom àndaale délégation bi nga xam te ni lépp luy mburu lépp luy café ak li mu ci war a def yëpp def na ko ba pare nekk ki nga xamante nii man su ma jaaxlee wala su ma amee lu ma metti moom laay woo téléphone mo xalaatal ma waxtaan ci te et puis yàlla daf ñu ciy suturaal ko sant bu baax daanaka su ma xool dafay sedd bu may wax si moom parce que vraiment daf ma taxaw si côté yëpp te bi may nekk assemblée di jàng métier boobu xale bu ndaw mu nekk fa ñoom ñu nekk si waañ ñëpp ñu fa nekkoon ñu moom tamit jàpp na si affaire yi bu baax di nuyu magam muy mbenn ñoom ñëpp mi ngi leen di nuyu di nuyu Baye di nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam te ñoo fi toog mbër yi nga xam te nag ñoom lañ fi dajale nekk ay mbër yu yaru ay mbër yi nga xamante ni ay exemple lañ ay booy lañ nag mais ay booy lañ ñi nga xamante ni faale ñu ay mag parce que buñ jógee seen koñ dañuy ku si mel ni Mbengue Mbor bu jógee caaro yu kenn du des Ameth Lac Rose Bawal Médina Rëbës kenn du des ay dara fils de kat yi tamit noonu caato mboombay gis nañ ko ni muy def Ibamar Milkzo tamit gis nañ ko Milkzo daf ma mu ne ma bii parce que am na ku ma war a jëndal trois blocs kii am na a jëndal deux blocs muy cinq blocs si mbër mu ndaw bi nga xam ne fayee gugul un million te mbër fay nañ ko fi un euh, fay nañ ko fi cinquante millions fay nañ ko cent millions te jaayul un million wallahi lazim te ñoom ñii amul ku ma si woowu ci ñoom ñii di ma laaj béy fan la toll parce que yaakam dina lamb ji ñëw man mi nga xam ne maa tëgg lamb ñoom ñoo ma gën a bëgg journée bi mais grand combat bi mhm. ñu ngi mhm. ak euh, xale bi di euh, Thiatou Daouda Fall mhm. lan moo tax ñëw ñëw non ñoom man maa leen invité wut parce que depuis lors ñoo ngi def ay jàkkaarloo. Mm-hmm. amoon na benn plateau bu ñu defoon. Mm-hmm. et puis ñoo ngi doon déplacé di te comme que koor gi dafa xat te kee Tëngéej la dëkk. Mm-hmm. kee moo ngi dëkk Géejawaay. xam nga ah, dama leen bañ a sonal te xamante ni am na beneen plateau spécial bu ñu ko retee ba pare bu mag boo xam te ni dañ koy def. ñoom ñëpp dañuy ñëw mbër yi ñu tëgg yëpp di combat yëpp dañuy ñëw. di wax ne rek euh, liggéey boo gisee mu mu mu ñun ñu am fit ragaluñu ñii ñoo nekk suñu ginnaaw muy muy jamaïcain muy góorandooy président de jeunes amateurs muy mor bu parcelle mhm. di nuyuwaale Fallou Ndiaye moom tamit lu si bëri moo ngi koy joué na rôle bu yu bëri yi nga ni moo ngi koy joué ci biir aa ñooñu ñoo jàppale Modou Faye Baye Fall ñoo ko dooleel ba mu am fit te di leen wax ne rek man li ma war a def si làmb mhm. defaguma ko te làmb ji am na gan incha allahu rabbi te ñoo pare pour dugg si làmb jërëjëf mhm. am na solo xam naa ni waxtu bi li ci des bëriwul dañuy indi ñaari mbër yi ci des euh,